Salam euh, ñi nous sommes di euh, donc sommes euh, dañu mais nous sommes sori ñu nuyu Nous sommes imam nuyu wa de donc également président association des jeunes pour le développement de Kër Nous sommes membres de l'association, association vraiment remercier ci li nga xam ni ñoo initié li nga xam ne moo fi indi tey muy journée de reboisement bi nga xam ni def nañ ko euh, muy loo xam ni lu am solo la muy une activité citoyenne euh, nga xam ni garab mooy lépp donc euh, buñ ko defee pare nañu ko pare nañu ko dañ ciy kontaan et puis di ci bëgg di wax ni vraiment kontaan nañ ci collaboration bi nga xam ne am na ci diggante association bi ak ñun pour vraiment ñu mën activité citoyenne bi nga xam ne développement la parce que garab mooy lépp garab ci la lépp di jóge donc bu ñu commencé suñu activité ci ci activité nawetaan yi activité de jeunesse yi ak une activité citoyenne comme ça dañ ciy kontaan j'espère que li ñu def Kër Magueye euh, association bi initié ko yeneen dëkk yëpp aussi dinañ leen ci topp voilà parce que bu ñu ko defee léegi Sénégal naat parce que nit ñi dañuy wax naan ndox amul gis ngeen actuellement ni nawet bi gàncax gi maral na mais lu ci bari ñàkk garab yi moo ko waral parce que ñëpp xam nañ ni garab bu amee rek taw day bari ndox day am donc wax dëgg yàlla lii buñ sañoon niñ ko defee ci Kër Mëgëy mu yaatoo népp ci Sénégal waxuma sax ci commune Taïba Ndiaye mais mu yaatoo ni liñ def fii ci ay garab bu ko dëkk bu ne defoon bu buñ ko yàggee rek léegi Sénégal naat comme na meloon bu ko defee ndox gën a bari donc wax dëgg yàlla di di am kontaan di di bëgg euh, di ci li nga xam ni ci lañ ñu ci boole ñu ñëw ànd ko ak ñoom fekkee ko defandoo ko ak ñoom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci loolu quoi. activité citoyenne bu am solo la boo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp ci war a ñëpp ñëpp ñëpp la war a soxal donc dama leen di encourager rek ñoom ñi nga xam ni ñoo am initiative boobu bëggoon nañ ko def la dernière fois mais experts dañ ne dañ dañ nañ wax ba ndox ubbi ñu jokk ñu soog koo jëmbat ba suuf tooy comme suuf tooy na nii ñu def ko donc wax dëgg yàlla euh, dañ ci dañ ci dañ koy apprécier di ci kontaan di ci ànd ak ñoom. di leen ci encouragé rek ñu bañ koo yemale fii ñu bëgg gën koo yaatal ci ci dëkk bi ak ci école yi ak ci ci ci ci li wër dëkk bi yëpp mën nañ dem sax ba mën a am benn benn jardin boo xam ne jardin filao lay doon wala leneen ak leneen yooyu yëpp si ay possibilité la mais pour man lii tàmbali rek la war a doon euh, pour pour pour loo xam ni day gën a soqali environnement parce que garab bi boo euh, ñëpp xam na ni pour que noy gën a am solo sax surtout ak environnement ICS bi fii garab yi daf ci am solo donc wax dëgg yàlla dañ koy encourager bu baax a baax di ci di ci ànd. seen idée la seen xalaat la donc vraiment di leen wax ni xalaat bu rafet la xalaat bu rafetu la te lu ànd ak jamono la lu ànd ak également euh, li nga xam ne moom le président la république di initier ba mu ñëwee léegi. donc vraiment di leen ci wax ni lu ngeen ñu ci woo rek di leen ci ànd ak yéen di leen sant di leen gërëm di leen wax ni vraiment daal lépp loo xam ne association bi woote na ko muy lii ak leneen. ñi ci seen ginaaw ànd ko ak yeen lepp luy initiative jeunesse bo xamni yeen ngi ci association des des jeunes pour le développement de Kër Maguey dañ leen ci fekk dañ ci and ak yeen bu ko defee luñ ci mën rek ñu def ko euh, xamni lool suñu bop lañ ko defal te njariñ la pour ñun njariñ la pour yeen mais njariñ la également pour Sénégal donc dal di sant ñepp di gërëm ñëpp bëggoon nañ ko gëna yaatal mais ak xat-xat yi rek motax mu démé ni mais wax deug yalla bëgg nañu contane nañu sant nañ wa Kër Maguey yépp ak suñu mbokk makka jeng yi parce que Kër makka jeng benn la donc ñoomi ñi ngi leen di sante di leen gëreum bu ko defee rek ñu xolaat yeneen programme yo xamni di leen gëna yaatal activité de activité citoyenne yi ci ci ci fi ak ci commune bi yépp vraiment di sante ñëpp di gëreum ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu waat bu baax euh, di dalal bu baax a baax suñu gan gi monsieur Madien di amat contentement bu baax parce que c'est pas la première fois ñuy am collaboration di am contentement aussi ci délégation bu for bi mu def ànd ak ñom ñëw fi seet l'association des jeunes pour le développement de Kermagay ci ben activité bu ndon doon muy journée de reboisement bon mu nek quelqu'un bo xamni bon c'est un homme intègre vraiment déjà ni muy il y a des activités yo xamni mom la wara assister ji malgré tout ça da koo bàyyi ñëw rejoindre ñu te temps vraiment nekkul lo xamanteni lu yomb la kon euh, loolu moy firndeel su que ni, bàyyi xel bu baax a baax euh, dëkk bi di Kër Magueye bàyyi xel bu baax baax la jeunesse de Kër bon ñukay remercier nak euh, bu baax a baax parce que vraiment au delà ci appui yi muy appui à tout tout le moment mo ñuy accompagner ci lu mën doon moy ci côté stratégie ci côté bu mën doon développement personnel lépp té commune wu Taïba aussi moko ñor comme niko Sénégal ñoré parce que ci activité yoyu rek lañ ko mus xamé bon kon mu nek lo nga xam ne vraiment content euh, nañ ci bu baax a baax association des jeunes pour le développement de Kër Magueye ñoo lay adresser ay remerciements vraiment yu bëree bëree bëree bëri seen xol sedna et comme ni nga ko faral di ci commune bi c'est pas la première fois aussi nga ñëw dëkk bi di Kër c'est pas la première fois tamit aussi activité citoyenne yi ngay def yépp aussi nga koy def fii nii kon ñu ngi content bu baax baax merci beaucoup.